ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel euh, xanaa di nuyu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi ak ci bitim réew waaye di ñaanal aji dawlu yi yàlla na borom bi yërëm leen taxare leen àjjana ñu nekk si hôpital yi yàlla na borom bi fagg seen bopp ñu jóg waaye it ñi caabi féete ginnaaw yàlla na borom bi may leen ñu génn ñu nekk bitim réew yàlla na borom bi may leen ñu am lu ñu indil seen njaboot yi Sénégal di ñaanal ñëpp jàmm mbokk yi ku ne xam na ni duudu ak buur gars yi dañ koy xaar saa su ne vivre nañu làmb ju neex di félicité waat encore une fois Albourakh Events ci diggante Tapha ak ki nga xamante ni moo di Balla Gaye mbokk yi làmb ji bi mu jeexee coow li bari na ci diggante Balla Gaye empereur bi mu nekk ci diggante Balla ak tafaatin dañ ko liggéey làmb ji li jot a xew si biir géew bi loolu laa bëgg ñu waxtaane ko ak kan alliance buur géwal moom mi nga xamante ne moo ne woon Balla Simba waaye buur coow li bari dégg naa César bu génn wax ci digganteem. bopp Sédar <laughs> bopp Sédar buur ginnaaw bi ma la nuyoo di la ziar di la ndokkeel bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi nga xam ni. ñoom relax quoi. ñoom nuyoo buur rek la ñuy xaar yaa ngi relax man kay sa nelaw laa yàq. Eh, damaa gëmbeentu damaa <laughs> sonn. foofu ma yàq sa nelaw. jërëjëf Doudou dañu sant yàlla rek di julli ci alayhi salaatu wa di ñaan yàlla buur bi yàlla na yàlla wàcc moom ngërëm. wàcc ko ci sahabatul kiram yi mu àndaloon di xeex lislaam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 di ñaanal sëñ Cheikh Madina mi nga xam ne tey moo toog jataayu sëriñ Mbacke Madina yàlla taawale ko jataay bu diis bi nga xam ne ku du borom attunu ko di ñaanal doomi Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Mukhtar ci jataay bu taaru bi mu donnee ci wéy juram al xalifatul awwal yàlla bàyyi ko ci kanamu njabootu Daaru Xuddus ak guy mind waaye di ndokkee rek góor gëni woon illaahi kalimatil ulyaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibn Cheikh Mouhamadul Bachir ci naal yu rëy ak yenn yu rëy ji mu am jëmale ko Cheikhul Khadim yàlla may ko lépp yeggee ci kanamam mu ànd ceeg suñu ni moo di menda waaye di ziar doomi xaw mi Seydil Babacar si moom mi toog jotaay maam Cheikh si maam Cheikh Sidil Hadj Malick di ziar Cheikh Mouhamadoul Mahi yàlla bàyyi ko fi te sàmm ko di ziar wàllew na di dokkeel xalifa ba mm-hmm. di ko ñaanal waaye di ziar Cheikh Amadou Mokhtar moom Seydina Mandione moom mi toog tey jataayu Seydina Limaamullaahi alayhi salaam di nuyu Cheikh bu Sidi Mouhamed Kunta di ko ñaanal yàlla sàmm ko jataayam sax di ñaanal magam ja Cheikh Bekkal Bekkaay yàlla xara ko aljana mu dajeek maamam di ziar waa jaamal njabootu Cheikh Marul Fouti di ziar waa Mérina waa Canaba ah waa Pire bàyyiwuñu kenn kenn kenn fépp fu nitu diina nekk rek ñu ngi lay ziar di ziar waa jàngu bi di leen ñaanal du di la ziar di leen ndokkeel baax a baax a baax. suñu mbokk catholique yi ñoom it di leen ziar. Mm, ñoom Jean monseigneur waaw. Euh, l'archevêque de Dakar. ñu di ko ñaar moom yàlla sàmm quoi. Ah. ndax ñoom dañuy benn communauté boo xam ne seen lépp ci jàmm rek la aju te Cheikhul Khadim dafa wax ni gisuma lu gën jàmm àddina gisuma lu gën alaxira dellu ne. yitte ñaari yitte saa buñ dajee mhm. nee na jenn ja dafa nekk jàmm moo tax kon ñu ngi ziar ak ñaanal l'archevêque de Dakar mhm. di ko ñaanal yàlla sàmm ko mhm. bàyyi ko fi ak toute la communauté chrétienne Franc nee naa la nuyoo bi dafa am solo euh, buur am na ñoo xamante ni nuyoom rek la ñuy xaar te ni muy def nii euh, <clears throat> Sénégal nii la baaxoo ñëpp benn lañu tarixa yëpp benn lañu ñun ñëpp ñoo yam ca fa yàlla mais buur dañuy dugg ci waxtaan wi Balla ak Tapha Tine jot xew ci géew bi laa bëgg ñu waxtaane ko buur am na ay image yu génn ci diggante Tafatine ak Balla ba Tafatine loxo bi da doon métteeg yooyu ñu ngi koy dégg ñoom Aziz Ndiaye dañ ko téye dañ ko sot yooyu noonu buur démb gis naa la nga taxaw ak Balla am na lu ngeen waxtaan. am na lu Balla Gaye wax lu daw sama yaram. buur ñëw ñëwal ma si image yooyu. xam nga Duudu euh, nit ñi foog ñu dal gis nga làmb làmb rek la te mënu ko wees. man j'ai de la peine pour Tapha Tine billahi wallahi lazi la ilaha illa dama ko ñeewant dama ko yërëm parce que dafay mbër moo xam ni biiram ak bitim lépp yiw la waxuma ci cadre làmb de je parle de la personne Dame di Moustapha tey bi mu bëree ci guddi gi dama gis ay vidéo yu ma naqari bàyyi ko ci ay bokki boppam ku nekk di wax nit ki bu meree du muus te alors que mer muus nit ki bu meree dafa war muus dafa doomi jàmbur la magi jàmbur la bàyyi jàmbur la làmb avec toutes ses réalités ànd nañu Tapha Tine njàmb ko mu daan Boy Niang mm-hmm. ànd nañu Tapha Tine njàmb ko mu am ndam ci Yékini Junior mm-hmm. ànd nañu Tapha Tine njàmb ko mu am ndam Serigne Dia Bombardier ànd nañu Tapha Tine bërki Dembo Ndiaye mu am ndam ci kaw ma seen pourtant boobu kenn sikku ko pourtant boobu kenn waxu ci wax bu ñaaw donc champion boo ko yoree da ngay ci moom ñaar mooy mën na wuti tey am mën na wuti du am bés bu wutee amul na nga jël bés bi mu amee taf ko ci bés boobu tey bi ma gisee la vidéo de Grand Thioune mu de ak Eric Favre ak ñoom Grand Elage ñoom Refane l'image était tellement beau parce que tey loolu mooy encadrement mooy nañ ko soulager ba mu xam ni lii kat sport kese la dama leen woon ci njëlbeen tafaatin pression bi ma gis ay bokkam teg ko métti na te làmb aussi jaru ko ñëw na ànd ak ay bokkam am yaakaar loolu ci bés bi yàlla mi ko mayoon contre Eumeu Sène moo ko xañ bërki dem contre Balla Gaye 2 rek mooy wax ci amul amul leneen parce que lépp loo fi mën a wax rek yàlla ne ca kaw moo ne ca suuf moo ne ca wetu càmmoñ ga moo ne ca wetu ndijoor ga ndax mooy aalimul xayb bi donc il faut que nit ñi di am sagesse ci làmb dañ ko def nii dañ ko def naa dañoo takk loxo yi dañ ko gëlëmal dañoo takk tànk yi dañ koo sëf ci mbaam dañ ko yooyu yëpp c'est des foutaises amul njëriñ Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye buñ yoroon luy daan mbër kon booy ñang bër ki mu daan Balla Gaye de dégguma dama ne Aziz hmm. ak Baye Alla Ndiaye hmm. suñu yoroon luy daan mbër bërki dem boo njaay booy ñan dë du daan Balla Gaye dë loo bëgg wax foofu buur mooy li ñu ci jot wax di leen ko taqal ñoo sacrifié tafatin damay wax encore une fois ñun du duñu ay doomu Aziz Ndiaye dem gis naa Balla Gaye bu demee kër Aziz ñu war fa mën a dem ñun am fa matière dañuy dem bu ñu déggoon tafatin tey léegi léegi léegi Sandaga ñu war a dem am fa matière dañuy dem loolu sa liggéey. ça ne ça signifie pas ay suq Aziz lañu wala ay doomam lañu wala ay Aziz Ndiaye yorul suñu kër yi dama koy wax encore une fois. joxuñu dépasse fayal lu ñu luyaas fayal suñu njàng doom mais sañ nañu revendiquer. Mhm. suñu amitié wala suñu diggante ak moom wala suñu diggante ak baay. loolu c'est notre droit le plus absolu. man Bour Abdelaziz est mon ami. du sax suma xarit suma mag la. Masata suma grand frère la man bàyyi mooy suma xarit mooy suma gaayan mm-hmm. te ça ne date pas d'aujourd'hui loolu c'était depuis 2011. ndeysaan. donc kenn mënul ñu teg pression boo xam ne da nga ñuy wutal limite à travers nos relation amicales mm-hmm. parce que yow mi ñu koy teg yow yow yaa ngi am say relation yow ak say nit di ko dox te waxuñu ci. donc on n'acceptera pas de subir cette cette sorte de pression là ci ay làmb non Abdoul Aziz Ndiaye suma mag la man barke alquranul karim suma grand la te duudu mm-hmm. billahi wallahi watallahi barke Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké mm-hmm. Aziz bu ñu ko doon reyal mbott pour Balla Gaye gagné du ko rey wallahi azim sama bàmmeel kenn du ko fekk mbott laa mbott wala reyal picc bi maa nga damm benn tànkam pour Balla Gaye de daan Tapha du ko def barki yonent yàlla Muhammad billaahi wallahi tallaahi Abdoulaye salaatul faatiha lay wér Cheikhouna Tidiane mooy sëriñam Moulay al amin mooy sëriñam salaatul faatiha la yoon ak jawharatul kamal Aziz du def yëfi ceddoo yu salte pour Balla am ndam ci kaw Tapha billaahi du ko def barki xaadimu rasulullah buur dafa mel ni wax ji ñuy wax daf la metti loolu baaxul xam nga gis nga dudu euh, nit du ñàkk ngeen ñànkiloo ko dafa dama déglu ay vidéo ay bokkam loolu baaxul bu ay bokki ama seen taxaw waxee bu ñu taxawoon waxee ni ñoom ni ñu waxee kon mu ñaaw ama seen bañ ko daan dafa gore déggoo ko déggoo ay bokkam dafa gore muñ xam ni daan nañ ko mu jeex mais pourquoi vouloir mettre la chapeau sur Abdoul Aziz Ndiaye wala nga teg ko ci Baye Alla Ndiaye pourtant ñoom li ñu yéene tafaatin ba fay ko ko ñuy coow lépp tey yéene wuñ ko tafaatin wala buñ ko yéenee duñ ko defal duñu def lu salte dañuy fami nag bu weex dunq mais wallahi wa rabbul kaaba maa ngi gin ci yàlla léegi laa jul tisbaar bu dee def lu salte walay xërëm wala lu ñaaw pour Balla Gaye de am ndam Abdoul Aziz def na ko benn yoon wala bàyyi Alla Ndiaye def na ko benn yoon yàlla ma gisante ak sama Moussa la jëbal xiyam du ba ñuy def dama fekke de mais dama xam yan façon yi doomu aadama lañ donc il faut que les gens arrêtent Tafa il a joué perdu Balla Gaye démb dafa moon benn image day xeex ak Tapha Tine dóor ko benn uppercut Tafa siggi tudd turam ko Balla Balla Gaye cette image là daf ko daf ko métti ci biir xolam billaahi wala sëngeem na lu mat cinq minutes ndax le fait que rek mu gaañ Tapha Tine ba xam ni blessé na ko billaahi wallaahi tallaahi daf ko daf ko naqari ci xol bi ba man ge senti ni kii image bi mu gis nii naqari na ko ci biir xolam parce que Balla Gaye gën a gaaw a jooy salaan loolu ñun ñëpp xam nañ ko mais nag làmb la Tapha dafa jot avance jug waaj moom ak ay bokkam Balla Gaye de jug waaj ak ay bokkam yàlla mi nga xam ni mooy jalla jalaaluhu wa kamal may na Balla Gaye ndam ci coobareem leneen lu ci waay wax da ci ñaaw Tapha Tine ne mérite pas d'être lynché par ay propre mbokkam ay bokkam waruñu ko xas Tapha da ñu rusloo da ñàkk jom da ngaa yambar da ngaa non ñàkk Tapha bu ñàkkoon jom du yegg fi mu yegg si te ku ci ne boo seen am doom ju mel ne am di Moustapha Tine ci yaroo no ci jikko ji ak ngor gi. man Tapha bokk naa ci reporter yi ko njëkk xam ci làmb boobu làmb melul nii muy ñëw à la rajo Afia. pays mbër yi man Fatim Diop da baax père booy bambara as caam ñu di ko def chaque samedi matin dix heures dem ba midi ñëw na fa bataay bokk na ci mbër yi ma njëkk xam waaye baat ba mu waxoon keroog rek ci duplex ba mooy buur garab ga ma toogoon reefan daan fa jàngal xuraan tey garab googu rek doy na ma nawle donc il faut suñu mbokk bool bool yi dal di wax mention spéciale à Diey mention spéciale à Dieye Sène mention spéciale à Dieye Sène les gor yooyu Tapha àndaloon gor yooyu xam ne du ñu wax lu ñaaw duñ ko def déedéet ñoom ak Tapha Tine démb la woon tey soog a egsi nañu delluwaat encadré la gos xam ne Tapha Tine est pur produit du Baol champion bu gën Tapha Tine wala bu ko ëpp wala bu ko sut amagul bool kon moom la ñu am nañu ko cernewaat jàpp ko jàppale ko accompagner ko gunge ko dooleel ko moom tamit moo xam ni lépp lu ma am ay bokkam moo ko ko war a gënal ay bokkam la war a jàpp ay bokkam la war a téye ndax ay bokki bool boolam la am ndax bi mu gëstu ñoom la seen donc il ne faut pas se laisser emporter par cette defet là ba ku nekk bëgg tuumal sa morom baa nga waxal sa morom baa nga sosal sa morom maa nga tam sa morom dëmm déedéet du loolu Balla Gaye ak Tapha ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. mais bu euh, si li mu bëgg insister nii mooy euh, ci Balla dama gis ngeen taxaw ndeysaan wax naan bi may dóor Tapha bi Tapha di tudd sama tur. boobu bu. naa wax fii léegi naa la euh, ko image bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko la profondément image bu ko bu ko naqari la le fait que rek mu yegg ak Tapha ci foo xam ne gis na ko deretam tuur boo mën possibilité jàppante Tapha Tine am jël da koy def mais Balla Gaye dee tey boo ko fëggoon léegi léegi léegi giñ naa ko Cheikhul Khadim boo ko laajee lii la gën a met caat danaan daal naan deret Tapha bi ma tuur wallahi azim man duudu amul mbindeef bu ma jaral a wax lu nekkul wala lu amul da damay xalaat suma àqulaay taala sama diggante ak sama borom mm. loolu laa gis démb ci kanamam si lui moom moo woon image moo la ko parce que dafa am ko ko wan mu dem toogaat ci taal bi toog toog toog affaire bi mënut ko digérer. xam nga image yi mi ngi daw si réseaux sociaux yi ñu naan Balla Gaye mi ngi seetaanaat boppam boobu seetaanul làmb ji action bi la doon mu ne ma buur kaay moon la ma ñëw mu ne mais buur action bi métti na ma trop buur barke Serigne Bassirou Bara oh. métti na ma trop trop nga xam ni genn ngoon la gëmoon adversité mook Tapha Tine combat bi la pression était énorme du côté de Tapha la pression était très élevée gars yi làmb dafa doon ba romb cadre làmb Tapha Tine sacrifié ko sànkuñu ko yàlla moo ñëw ak i dogalam ay buur Sénégal est que gëmati nañ yàlla waaye yàlla ku ko gëmul di nga ko mës gëm. wala mun nañ ko gëm te wóoluwuñu ko. waaw ku ko wóolu la gëmoo ko di nga ko mës gëm. yàlla mi ko mayoon ndam contre Eumeu Sène moo ko xañ contre Balla Gaye moom Tapha Tine na ko jëlee noonu na ko gisee noonu na ko xamee noonu bu subaa mu takk ay dàllam sol blouson dem liggéeyuwaat. am na solo loolu rek moo solo du am na solo fi may tëjee Francesco mooy. fan yi vaar bi ñuy wax. no coowu couronne bi bëri na moo loolu lépp. waaw wax nga dëgg de. buur Aziz Ndiaye dina fi coow de. non kër bukki la dëkk. non mais kër bukki ñàkkul coow mais indi na fi coow. Aziz du buur Sénégal ñëpp nee nañu Balla gay fi mu teg bëtam mooy diggante Modou Lo ak Siteu. mais buur loolu ñëwaatal que loolu dëgg la attention gis nga pour man euh, fi gars yi bëgg a yóbbu làmb ça n'a sens. Euh, da ngay gis ku ni waaw da ngeen di jouer bëgg kii Modou Lo non c'est pas ça Modou est un lutteur buy dund ci làmb Modou day simmeeku di xeex ñu di ko fay. mooy liggéeyam mooy liggéeyam. liggéey na ba dégg roi des arènes bërki dem moo njaay ab trophée bu jox empereur dugg ci làmb ji. jaxase coow ci diggante Tapha Tine ak Balla Gaye 2 Balla Gaye ko moo tax ma ne bu ñu bëggee nañu teg seen ñaari couronne ku daan ci combat boobu nekk le roi nekk l'empereur man buur maa ko wax dama la waxoon fii duudu ne la coow li ci làmb ji yëpp Balla Gaye picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci benn objectif lam ci àdduna mooy nu may dafa bëriwaat ak Modou Lo du du daf koy topp pour bëree ak moom déedéet mais bokk na ci ay souhait mais Balla de bu bëreewul ak Modou mën na jël Franc mën na jël mën na jël mën na jël euh, mën na jël sax mën na jël Zarko mën na jël mën na jël Eumeu Sène mën na jël Reug Reug amul problème Balla Gaye de amul problème mu Balla Gaye de jar na ba pare tuutu ku ko neex lay bëreel Modou yegg na au sommet il est le roi des arènes mais nag digganteem ak Balla Gaye est une demande nationale. mais bu am na ñu naan Balla Gaye yow nit ki mënoo ko daan deux fois ba pare di daw si ginnaawam di ko bëgg jël. waaw waaye pourquoi supporter u Modou Lo yi jàpp ne Modou Lo bëriwaat ak Balla Gaye eh, Balla Gaye bëriwaat ak Modou Lo da koy daan ñoom si cause boobu la ñoom les supporters de Yaa Oustaz te loolu mooy dëgg boo ci tegoon fukki booy juróom-ñeent yëpp booy laaj dañ daan yii da koy daan pourquoi man li ma naqari ci affaire bi yëpp duudu mooy loolu. pourquoi ñu jàpp ni que Modou Lo mënul daan Balla Gaye de man waxuma waxi couronne ak yaa saa quoi mooy pourquoi Modou Lo warta mën a daan Balla Gaye de attention bu ñu gisee noonu bilaay Modou Lo c'est la Modou moomu ak bii du benn y une très grande différence motloo bii ak Balla Gaye bu ñu jàppante woon ci benn takku sax grande différence ca Modou ma Balla Gaye de daanoon ak motloo bii nee naa la lenn su ma ci amee naqar lenn moo ma ci naqari laa wax li supporteru Modou jàpp ni que motloo Lo mënut a daan Balla Gaye de <coughs> te loolu du yoon Modou sportif la mm-hmm. buy liggéey jour et nuit boo ñëwee mu daan Balla Gaye ba deux bërki dem Modou ko daan donc pourquoi ñu jàpp ne que Modou warul mën a daan Balla Gaye 2 quand même du Balla Gaye mooy topp Modou Lo déedéet Balla su bëree Modou day bëri keneen Modou bëri keneen amul problème mais du dama leen woon ku ku aji màkke doo amee bor Modou Lo Balla Gaye demande nationale wala Balla Gaye 2 Eumeu Sène demande nationale. donc bu ñu indi ay. da ko bëgg a fexeel da ngeen ko bëgg ki kii da ngeen complot kee kee moo leen yónni pour ngeen wax lii waaye empereur bi amoon kii roi bi du topp kii du dàq kii yooyu yëpp ñun intéressé wuñu c'est une demande national Modou Lo lu mu mën a am ci àddina saa bala Balla Gaye ne ko maa daan sañ nga taxaw ne ko maala la daan fayu naa fayu naa bu bëree ba tekki njambam te bëriwul ak Balla Gaye de daan ko dina am lu ko naqari trop ci dundam ñoom supporter nag ñoo xamul li xew ci digg làmb ji waaye ñu ñu nekk ci digg ñànkatan bi xam nañ li xew Modou Lo bañul bëri ak Balla Gaye de de euh. billaahi wallaahi wa rabbul kaaba bañu ko de te ragalu ko nag de ban Modou Lo moo war a dajawaat ak Balla Gaye de ban Modou Lo la ban Modou la war a doon donc l'histoire nous édifiera ñu yónni yàgg li ci kanam rawul bët nañ yónni yàgg rek. Franc fi may tëjee mooy euh, sénégalais yi dañoo jël benn var sëf ko buur géwël te dama bëgg ñoom ñu dem seetaan fii wax ji tàmbalee ba fi mu yem buur gars yi xam nga var moom nu la neex nga koy génne. waaw mais nag xam nga daanoo dañu xaw a mer nag quoi en fait mais ça se comprend ah, yooyu dara. Hmm. taf Balla Gaye bu sampee jaaga ak tafaatin hmm. indi bëri. Hmm. mën na am dara si tafaatin bu taxawee samp jaaga di dóorante nii dóorante am ay njaay jox a mën na koo kaw Tapha su mayoon Balla Gaye de distance wala wàcc ci ay tànkam ay cëram moo gën a jot mën na xeex ak Balla Gaye de ba dóor ko mu daan te Balla de du fayu. wax ci wax bi leer na. donc gars yi partie boobu ñu dagg ça ne m'intéresse man sama pensée bi noonu véhiculé moo ma gënoon a amal solo mooy dama bëggoon décrire combat bi à sage juste valeur boobu maa ngi xamal Tapha Tine que waroo bëre ak Balla Gaye de combat soo bëre ak moom combat rapproché da lay kor jox naa l' exemple nga ne ma Tapha Tine nu mu war a bëree man la na mu bëri woon ak Boy Niang mooy taxaw wàcc ay tànkam may ko distance fu Boy Niang fële mu gis ko jam croche waaw kay moo tax ma ne ba ma ne woon Balla Gaye 2 su ñambaanee bëre bi. ak xeex ak bi. mën naa am mën naa am dara lii ma wax li ci des. Franc lii moo doon wax ji. man du si yaram yore yooyu man du ma ko sax topp yàlla xam nga. looy tàggoo. waaye di jox ñëpp rendez-vous rek ne leen bii pro moom ñoo nga ci tey defe naa war na ñëw tey vingt ak émission wax ji ak ma jigéen ak Doudou ñu waxtaanee nag coowul couronne yi. <laughs> yi soppe soppe yi lay bàyyi xel. di bëgg ñëpp. wax dëgg yàlla yonti bi amuñ ci kenn lu ñu metti ku ñu commentaire saaga baal nañ leen ku ñu commentaire wax lu rafet jërëjëf ku ñu tuumal jéggal nañ la ñoo ngi baalu àq ñëpp ci làmb lañu ñu nekk ñu ngi assisté di jëm ci yeneen i journée incha allahu rabbi nañ ñaan yàlla yóbbu ñu ci jàmm dimanche ñu nga jëm ànd ak makan meññ te filaalu CLAF bi le 28 diggante Thiatou Yarakh ak Doudou Sané jot nañu information ne Thiatou Yarakh jël na avance am des na pour bëre yàlla na ko yàlla mottali loolu rek lañ ci bëggoon mooy na ci jàmm rek topp tey bi mu jëlee avance am démb ànd ñu ak moom bi mu ko jëlee mayuñu ci saafara waaye la fait que nag ñu gis ne que jàmm am na te xale la il a l'avenir devant lui donc on préfère mu dem bëri ji mu jeex suba mu suba mu tourner la page nekk ci ay dara daf ñuy ay dara. Mm-hmm. moom mi nga ah, xamante mooy kër bu mag bi làmb rek lay topp ay dara naanaan la damay wax ni euh, xëj na duñu ñu ay mag ma ñu ngi bàgg bëgg yàgg ci milieu bi te am lu ci bëri loo xamante suñ ko mënoon ñaar tey benn lañ ko mën tey ay ñoom duuru la ñu bàyyi pratiquement sur le terrain ay dara di jeune bu am ambition bu gëm làmb nekk ci son loolu te làmb defalu ko dara yàlla xam na ko Baye Naar le grand kër moom tamit di di di di ko xam ni vraiment zéro faute. Baye Naar dafay analyser les combats à sa juste valeur. Mm-hmm. avant pendant et après. ku ci mel ni Njool. ah Njool bàyyil bébé Saloum nag bébé Saloum mi mu ngi Cheikh Cheikh Taalif yow bul fontoo nit ñi ah. ñoom Njool vraiment ah ay boy yu guerrier ah ñoom Mor kase ci TikTok bi. ah ma Paul. Mm-hmm. ndeysaan gars yi dañu. dañu dañu dañu dañu dañu bëgg làmb voilà xool wallaay dañuy dañuy dañu nekk ci live TikTok bi ba cinq heures du matin di jaay làmb ah ñoom kur ci Bakary Sakho mm-hmm. ah ñoom wala Alaaji Sàppali moo na mi wàdd ak Malamine ah ñoom kur ci jabam xam nga des gars yoo xam ni ay ñoom grand Aline Gueye ci TikTok bi lañuy ñuy faral parce que bu làmb bu daan dem da nga daan jël ay publicité di ko fay ci ci ci ci ay télé ay millions mais léegi réseaux sociaux yi lañ koy wax ay xale yu ndaw yu yu am ambition presque dañ koy waxtaane six mois gars yi chaque jour ñu direct wax ci làmb donc du ñu ngi gërëm ñëpp di encourager animateur yi nekk ci làmb yëpp su ma rakk yëpp bàyyuma kenn di gërëm pël bu rafet di gërëm pël xam nga Doudou non pël day suma nit. man dama koy xool à travers ces reportages. di doom ju sonn ci ndaayam. pël ay rakkam bu ñuy seetlu ci moom dañuy jooy. njaboot moo ko bàyyi Ndakaaru ak ay rakkam. jàmbaar dëgg la. jàmbaar dëgg parce borom Tuubaa. jigéen ju mën ah, uhuh. mm. ah, ñoom Matu. Lamine Seck suma rak Babacar Diom Modou Anta ah ñoom Thier Lambalok moo très cher ami vraiment ay gars yoo xam ne ay ñoom Abdou Djili ay boo yoo xam ne Baba Gueye ñu ngi percé vraiment di dugg ci maanaam di dugg ci làmb mhm. te loolu c'est très très très important man damay wax ni loolu suma suma suma fierté la man parce que dix ans ci ginnaaw man rek maa fi nekkoon kenn xamul woon li ma yor xamuñu ko woon sax te boobu télé fi nekkoon di ñaanal suma mentor HBK yàlla bàyyi ko fii yàlla sàmm ko yàlla dooleel ko wolof dañu ku yokkul na ngaa wàññi bi ñu àndee ak moom ba tey macha allah on touche du bois dañoo yokk nag Modou mbay sama doom le grand animateur mm. dégg ma damay sant bantamba ba mu yàgg ma ne oh vraiment Modou Mbaye il est il est très macha allah il a une expérience avérée. ndaanaan la quoi Modou Mbaye. ah Baye Balla Mboup le griot du peuple et de la banlieue. ma tamit ñu bokk plateau Babacar kër l' arbitre. vraiment di gërëm di lu monde lambi yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn. am na solo. Mhm. ndeysaan Francesco mi ngi noonu loolu la ngeen indiloon tey ci diggante buur ak ki nga xamante ni moo di Doudou ci ngoonu lu làmb dégg ngeen li nga xamante ni mooy kàddu yu. yooyu ñu fi yëkkati Balla Gaye daan na Tapha waaye bu jeexee jeex na la la waa Pikine waxoon ci euh, Boy Niang mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen ñu doon bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel encore encore une fois di gërëm ñëpp ñu kenn jërë ngeen jëf mbokk